usine glace bi Optique Vision Plus Sénégal yemul foofu ndax am na it beneen boutique bu ñu ubbi ca Touba fële ca euh, Touba kon lépp lu ngeen soxla ci lunette soxla ko ci accessoire lunette euh, bu ngeen demee ci boutique boobu di ngeen ko fa am mu di Optique Vision Plus Sénégal seen numéro téléphone 33 821 54 57 33 821 54 57 wala 77 479 63 38 77 479 63 38 mi di ànd ak ñun ci xalaas ñu leen ci remercier bu baax a baax Sénégal yépp kontaan ci ñoom ndax gaamu téléphone yu ñu indi mi am na téléphone Android mi yoon am na téléphone simple mi yoon am na télé am na tablette mi yoon euh, ci euh, téléphone yu baax te garanti ay njëkk yu yomb téléphone mi yi wala tablette mi yi képp koo xamante ne ji bëgg nga ko fii ci réew mi mën ngeen a ko am bu dee ca Colobane ca Xuma et frère mais également Xuma et frère Grand Yoff Xuma frère ci Mbour bu ngeen fa demee di ngeen am téléphone mu yoon yi tablette mu yoon yi Touba Kam Rue du Diouf Cheikh mbay Diba tuuba wala ci Khadim Gueye Tamba Bass Thioubou ca Ziguinchor Cheikh Dieng ci Ourossogui Thierno Fall ca euh, say fulaay Bari ca Kolda foofu yëpp bu ngeen fa demee di ngeen am téléphone million yi wala tablette million yi te bu ñu leen ti jaay nag dañ leen koy garantir douze mois ngir wóolu gu ñu wóolu suñu suñuy bagage am service après vente boo xam ne Grand Yoff la nekk jàkkaarloo ak église Saint-Paul ku jënd téléphone million wala tablette million am lu ci sikk wala am loo ci comprendrewul demal ci service après vente bi ñoo lay ñoo lay koy lijjantil ba mu leer ci sa bopp téléphone service après-vente bi 33 827 37 96 33 827 37 96 heure xalaas jot mu nekk ci ma dalal passe partout passe maa ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar. baa ngi ci jàmm. dina kontaane bu baax. alhamdulilah. MMN. <laughs> ah supporter rek. ba mu neex kay. ah déet supporter rek sama waa ji Aba. waaw dama lay liiral message bi ma yónnee. <laughs> message groupé la. nee na ma nation bi. convoqué waat na l'animateur de la nation demain dix heures. waaw le stade ak DJ Boubs ñu koy nuyuwaale bu baax a baax. Boubacar di ko ziar bu baax koo gëj a dégg. Mhm. comme nekk fi mën naa koo delloo tur bi may woowee. sikk sikk ah loolu la ma daan woowe de. kan la musique yow man. loolu mooy mas di wooyu Boubacar Diallo oh, Boubs mi ngi noonu kon Abba noonu la gis nga mbir bu taxawee mhm. surtout muy cause nationale ah kenn ku nekk da ngay taxaw fa nga war a taxaw xam nga Abba footballul Boubs footballul mhm. ay nag ñiy ñëw waaw dañuy soxla nag ñu leen di galvaniser. di leen yëngal voilà yàlla nañu yàlla may ndam. amiin amiin amiin parce euh, li may ñaan mooy damay dégg ñi naan na ñu yóbbu ay lasper ñi naan nañuy yóbbu ay seetu. Ah. bu ñu dugg ci yooyu yëpp. Ah. gis nga bu ñu fi xoolee ba gagné match bi. ba ah. pare def fi loo xam ne kaaf daf ñuy topp ginnaaw bi. du ko jar. te am na yoo xam ne boo ko defee. yaa dugal sa bopp ci sanction yàlla bu ñu fa yegg mais nañu raisonnable. Ndiaye ma laaj de du laser de. ay laspère laa la wax. non nañ yóbbu laser laspère bu na def baax nañ yóbbu laser. laspère naaj bu tàng bi de xawma. laspère <laughs> gën a original laser nag. xam naa nu mu tëddee bés ba sa loxo metti de mi ngi ci mais daal. waaw nañu supporter. mais nañu yóbbu seetu baax na. boo defee ni si jant bi. day ah, man ku ma ñaan billet su ma la ko mayee li ma la ci tegal mooy condition bi. Hmm. mooy na nga yoo yi. Ndiaye yaa ngi may billet. ah xewit. ah Ndiaye dama ciy tax lépp. Ndiaye na bëgg ma sa bopp de. ah xewit dama ci takk rip. njax man ak yuuxoo yi daal. wurum bii gi ma nekkee fan yii. ma ne ma yi daal na jib. léegi soo paree jox ma bii. ban ci bii. xanaa ah, da nga koy wàññi. xanaa ah, da koy jox ma ko rek muy baal affaire la. <laughs> waaw d' accord amul problème du ñu boole. la mbir la. loolu kay du ñu boole. baa yaa ci jàmm. maa ngi sant bu baax Ndiaye. alhamdulilah maa ngi ziar ñëpp di ziar auditeurs yi. yàlla nañu yàlla may ndam. amiin amiin non dañ koy am. parce que yàlla nañu gagné Égypte. dem coupe du monde. ma jox la score. Hmm. dañuy am trois ñun. te alhamdulilah. ñun waaw di leen dugal trois bi. waaw léegi nag fàttal te kii tëyër égyptien ba bu ñu dugal dara. égyptien moom du ñu dugal moom bu soobee yàlla. wuyu suba am na. nuyul. nuyoo <laughs> kon baax na. nuyo <laughs> nuyoo bu baax. Ndiaye dafa am euh, suñu suñu maire yu nekk. Euh, am na sama benn jigéen nee na ma billet laa bëgg malheureusement jeex na. suñu doon fi bi ma yor joxe woon naa damay lijjanti beneen bu may yóbbu. <laughs> suñu suñu suñu yaay yu nekk euh, marché marché Zeng. Mhm. ak Ndiaye Ndeye ñu ngi lay nuyu bu baax di ziar waa xalaas yëpp. wax nga fu ma miin. waaw marché zinc. ak marché syndicat. marché sawaneen. ñoom daal damaa nekkoon oxygène nag. dañ ma yóbbante ne ma. waaw ah. nuyu ñu Mouhamed Ndiaye nañu waa xalaas yëpp ak waa RFM. ne leen nuyoo bi yegg si na ñu ngi leen di gërëm. ak takk der ya nekk ci gendarmerie front de terre. ndeysaan waaw. ah ziar bu baax ñoom saa yu ñu xëyee ñu ngi ci xalaas bi. alhamdulilah. xam nga boo demee na ba takk der di la di la woo di la di la laaj lii ndax kaaw arnaque la am déet. Mhm. nga xam ne nag yaa yaa yaa ngi le maire Ndoye mi ngi may woo damaa xamul xaaral après mu xool lu ma bëgg a wax ndax moom fi mu ne bu Sénégal di football du am jàmm. monsieur le maire bi bi bi bi la lay jox ay billet lay joxe. moom lay joxe. waaw ah. ay eh, ca kon. ndax nit ñi yitte woon nañ ko. naa dem jëli sa mbos léegi bu soobee yàlla Ndiaye. paas. li fi jàlloon démb. waaw. nekkate Ndiaye Sénégal yu bëri sànku nañ la Côte d'Ivoire. ñii ci Sénégal la woon. léegi nag la moo tax bugguñu ko bugguñu ko soofantal. Mhm. njaay mhm. mooy am na bu fi xewoon si woon ñu naan dëgg la du dëgg fekk na waaj génn àdduna. waaw effectivement. comprendre nga kii mi ngi Côte d'Ivoire. Mhm. ñaar lañu. kenn ki deux mille dix neuf lañ ko fi jëlee yóbbu ko fa mu yoroon fi liggéeyam yor ay employé am te ñam doon employé. kooku moo fi jógee dem Côte d'Ivoire baab ko nax ko bu yóbbu ko Côte d'Ivoire fi mu nekk nii. kooku daw na. ma nga ci dëkk bay torox amul sa paas bu paas bu indiwaat Sénégal. ba nga ko fa yóbbu lu mu ci ci condition la ko yóbbee. comme genre liggéey yi rek affaire yu kii la ko wax. Ah. kii dafay njëkk leeral système bi ñuy def. waaw boo ñëwee foofu ñàkk xaalis ñuy def ki si topp moom la fi yóbbu depuis deux mille dix déglu déglu. Abidjan laa nekk Côte d'Ivoire laa nekk xalaat léegi am lu ngeen wax ci affaire waa jooju noonu ñuy yóbbu xaw ma jóge Sénégal ñëw fii. Eh, après gars daal pour péku rek ne dafa feebar mel ni waaye dama bëgg expliquer dafa am benn phénomène boo xam ne euh, néew ma nag bii boobu la waaye dama ci bëgg seen problème wala boobu bëgg a feneen daal di def diil néew ma nag bii boobu la waaye boobu bi dama koo dund dama ko gis moom man dama fekke fu ko defee ma assisté gis ñu koy def dañuy jël seen téléphone jox ko keneen kooku seen numéro kër jot diw ne ah diw day dafa feebar feebar bu métti yóbbu nañ ko hôpital vraiment euh, xaalis bu nangam moo a jàlle donc bu xaalis day nangam nangam ñun ñu fi nekk ñoo cotiser def lii wala boog yóbbu dem sénégalais ya fa nekk ñooñu dem ñu sarax ñu may ñu nangam donc yéen daal yéen war a yónnee nangam ak nangam wala benn phénomène boo xam ne dañ naan diw sax dañ ko tëj prison am na man moom gis naa ko ko def dañ diw dañ ko tëj prison te gars yi neen tant que fay ñu nangam duñ koo bàyyi donc loolu tamit phénomène bu bu la donc loolu tamit euh, pour attirer seen attention loolu la woon dégg nga Ndiaye. léegi li nga expliqué nii mooy système bi ñuy doxee. système bi. waaw léegi parce que uh-huh. daf ci am ñoo xamante ne ndekete bu ñu fa demee ba amuñu xaalis ñu bëgg indi keneen wala ñu bëgg rembourser xaalis bi. Uh-huh. dañuy woo seen famille. naan leen hmm. ñuy keneen moo leen di woo. ne leen diw dañ koo tëj ci kaso bi wala daa feebar wala dañ koo kidnappé ak yooyu noonu. Hmm. fekk na moom moo teg ak ñoom dil maa ngi wax hmm. sànq ne li tax bëgguñu koo sofondal mooy. comme am na ku ci dem mu mu dem même fay mais kooku génn àdduna. donc lu ci lu ci ñëwaat dañ koy jël au sérieux ba keroog ñu gis leneen. kii nag moom. Uh-huh. moom la ñu fi jëlee deux yóbbu ko Côte d'Ivoire ba tey ba de mille vingt deux mi ngi Côte d'Ivoire amul sax paas bu ko indiwaat Sénégal te si yéen lañ ko yóbbee woon. day wax ni. mu dem dugal ci xaalisam bàyyi jaay ay terrain yow maanaam bi muy dem sax daa programme woon takk jabar boobu ba jàpp datu mariage am. la ilaha illallah ñu déglu ñu déglu. waaw man nag yàlla rek moo tax may wax quoi parce que man dañ ma dundaloo même cas parce que 2019 ki ma fi indi noonu la ma def waaw bàyyiloo ma ma fexe bu fexe ah, naa ne woon leneen lay doon mais dootul ay arnaque yi nii voilà parce que si ma la doon liggéey ba mu ñëwee si fii nii mu am problème man maa jël sama xaalis yóbbu ndigal waaw am ñooñu mu ñu léegi nag moom bu demee ba dugg ñooñu tegaat ko pression pour mu xuutaat keneen pour mu mën a dugalaat xaalis ci la ma woo teg ma pression mu ne ma yow de li nga ma defal si àddina ba ma gisee lu baax mën naa la delloo parce que yow yaa ma defal lépp place bi ma am nii tey

xam ba mu dem ba comprendre ma xam situation yi lii ak lii la man ci laa génn ki ma fi indi nag moom si boppam dafa mujj daw boobu léegi xaw fa mu nekk man nag maa fi biir Côte d'Ivoire boobu léegi bëgg ñibbi sax a fexe ba nga leen mujj yërëm donc nañ def très attention nañu xam ne li ñu di wax dara du ci dégg képp nga xam ne yaa ngi Sénégal ñu nekk ñi nekk Côte d'Ivoire wala nekk beneen pays Mali fu ñu munti nekk Congo euh, Ghana tout ça Nigéria fu ñu munti nekk la mën lañuy fay lii ak lii la dañ nekk nag ni nekk wax dañ lay nëbb parce que bu la waxee ki dañ la naan yow xam nga liggéey bi doo ñëw waaw parce que liggéey boo xam ne yow da ñëw balaa ngay am yow il faut se réseau mu am cent personnes ou cinquante personnes yoo ko doog a am xam nga loolu kooku mun ci gëm la moom da ko gëm léegi ñoom bu ñu leen waxee loolu boo ñëwee bu mais buñ la buñ ñu wax loolu yow buñ ñu waxee beneen liggéey boo ñëwee ñoom ci lañ leen doogam présenté xamal ne la liggéey bi lii la ak lii la droite comprendre nga valider nga sa stand tout ça là dañ lay expliquer loo xam ne vraiment yow sa bopp da mën a comprendre quoi donc nag yow boo génnee fekk yow xaalis bi nga wala nit ñi nga xam ne xas nga yow bu nga dugal leen seen xaalis yàqu loolu yëpp yow yaa nekk yéno parce que yow xas nga ba nga woo doomi aadama ñëw seen xaalis dugg yow sa xaalis dugg mënatoo si jot xam nga loolu dafa métti situation yi nga xam biir dëkk bi ni tey dafa métti waaw dafa métti surtout indi la foo xam ne xamoo fa kenn ba pare ñu sànni la parce que man mi tey bu ma demee ba liggéey man xaw ma foon kenn waaw man dama nekk nekk na ma ñibbee rek mais su ma amoon na ma ñibbee fekkee woo juróom ñu may dégg nañ xam ne bu baax a baax ñu leen di wax du dégg parce que man am naa si ay preuve am na ay preuve yu nañu am na ay yeneen ñi xam ñooy nekk fi bu leen wooye même cas bi ma leen di wax ni moom lañ leen di waxaat kooku dara jota du leen nangu wax ni kooku dina wax ñoom parce que ñoom dañ koy waxloo dañ koy noppiloo mais dara jotu ko dara jotu même buñ ko waxee nag na na def na tey jii nii na jël benn photo mu tiiree benn photo ah, envoyé leen di ko def donc loolu yëpp ay fen la wala bu fekkee yow yéen moom mu ngi connecté wu ngeen woo ko appel vidéo na na leen jox malade bi wala mu yóbbu leen fi malade bi nekk li ñuy wax dara du ci dégg Ndiaye man lii nii ñu ko fi dalee wax. waaw euh, nuyu Ndoye Bane au passage. monsieur le maire monsieur le maire xam naa ne man waa Pire laa yërëm ndax jamono ji na <laughs> nga cay maire ba voté budget waaye moom maire ba xel mi yëpp a ngi maa la ko ay billets la may lijjantiloo fu ma ko mën a amee. gis waa ji ci fin bi dégg nga lu mu wax. waaw moom laa doon expliqué dara ko. man lii biñ ko fi dalee wax ba léegi. waaw dafa yàgg. lu tax nit ñi di nangu ñu leen ciy nax ba léegi man loolu mooy sama problème. léegi nag Ndiaye la waaw man li tax ma xawoon njort ne. Mhm. li kii mujjee wax mooy dëgg. Mhm. bi ñu tegee élément démb bi. mooy ki doon wax ne dafa feebar. waaw dem nan man rek maa ko mën a gis. waaw waaw kañ wax daa feebar def na vocal. donc wax dafa feebar wala. dañ ko vocal vocal na copain am bi nga xam ne moom moo fi ñëwoon. waaw vocal na ko maanaam ni ko damaa xawoon feebar affaire yooyu noonu mais suba maanaam tey wala suba dina dem ci ay mbokkam foofu ca Côte d'Ivoire ci nijaayam ya hmm. ki nga xam ne dañ leen gëm la woon ne leen feebar na ba kenn mënu koo gis. Mhm. bañ naan bu ñu ko déplacé sax diggante fa ñu nekk ak foofu mun naa mu dee. wóorul waaw waaw kooku vocal la démb bi élément bi jàllee. <laughs> lu ci mënti am daal mooy njaay. kenn mënu koo lijjanti. njaay ñun ñun surtout ñun jeunes uh-huh. c'est-à-dire il faut ñu xam ne liggéey dafa am norme. Uh-huh. nit mënul toog Côte d'Ivoire wala Burkina Faso wala Sierra Leone. Uh-huh. naan la am na entreprise multinationale bu lay recruter jox la oto di la fay quatre cent cinquante ba naan la contrat quatre vingt dix neuf ans. man loolu moom ci gën a métti. liggéey dafa am norme cest liggéey dafa am na yenn yoo xam ne bu la ko nit waxee. Hmm. da ngay jiital sam xel. beneen bi ci topp mooy xam nga ñun lu ñuy rey paas. Hmm. nëbb gu métti. gis nga tey jii soo ma diggee benn projet. Hmm. dina ko nëbb nëbb goo xamante ne jii amaan na sax su ma ci waxtaanoon ak i nit. danañ ma ci génne. soit. am ku mu ne ma bu ci dugg. Hmm. wala ku la ëpp xel wax la li ci nekk wala yëf ya siiw dil ba kalaat mais dañuy nëbb nëbb nëbb nëbb nëbb ba à la limite. Hmm. fa ñu mujjee mooy ñun ñun rek ay gaañu. xanaa xamoon ne Ndiaye. Hmm. loolu moo tax wax wax nii. buñ ci taay tax. li ngay wax nii xam nga yàgg nañ ko wax. boobu waaw démb ci suba. bi may xëy. damaa fekk fii benn waaye laa ko ñu baal ma ci kàddu gi. jigéen. mu woo ma fajar. bu may woo ba maa ngi doog a yeew sangooguma. muy ma dama laa soxla maa ngi ci buntu rajo bi. lu urgent la mu ñëw fekk ci buntu rajo bi mu ne ma damaa am sama benn correspondant bu mu yónnee benn colis. Mhm. colis ba jógee France wàcc Cameroun léegi dañ may laaj xaalis bu ma fekk man soxna si dañ nax dañ lay arnaqué laajteel visite soxna si fi la di yooyu nee na man maanaam yéena moo ko mu jot colis woon bi. nañ ko. ma wax yéeg wàcc soxna si nekk ak de yéena ma ko loolu. booba damaa mujjee génne yeneen photo mhm. yi ñu koy yónnee ma génne ko sama téléphone wan ko ko. ne ko niñ la def gis naa ko nag après réaction xam naa ni xaw na mel ni ku ma gëm wóoruma nag. Mm-hmm. mais daal bu ma ko waxee daa bët ay ay bëtam di jooy. mais yow daal wan nga ko lu leer ci ne. lu mel ni di kon baax na. yaay fu ñu jëm. élément bi mosoon na fi jàll. waaw mais ki ci dimbali woon. waaw damaa amatul numéro ki ci dimbali woon wala ki ko ci dimbali woon. waaw ah, xam ku ñu ku ñu dimbali ko fi ñëw ñun la dimbali. waaw amatuma numéro dama koy jaarale waat su fekkee mi ngi may dégg. waaw mu contacté waat ma ci 77 157 17 mu dimbali waa ji. bisimilah waaw man dama juddoo si famille boo xamante ba ma toll noonu ak ndànk-ndànk yi xam nga jigéen rek ak ndànk yi dem utile muy yóbbul njabootam te finalement benn ma toll nii dama ma néegu góor moo tax ma ji ma siy sakku ki nga xamante ne na ma si jàppale. sutura mu jàppale ma moom luy problème dafa dem ba nekk mag te duggagul néegu góor waaw euh, mu bëgg ko ci dimbale waaw daal daaloon nañ seede ba amoon nañ ni kuñ ci dimbali woon ci ñu bari sax mais laaj bi mooy lu tax moo mënul demal boppam Njaay Ndiaye Ndiaye Ndiaye nag Ndiaye Ndiaye Ndiaye nag xam nga yenn saa yi. Mm-hmm. comme ñun ñi ñi ñi fi ñëwoon ba ñu jël leen en charge. waaw ñooñu ka lañ jël en charge. waaw daf leen yóbbu ca këram. ci sutura. Ah. ñu ne ci biir këram. Uh-huh. mu mu xarafal leen. ba ñu wér fa. Mm-hmm. am ñoo xam ne dañoo tàggoo dem séminaire ñi tàggoo dem ay voyage de noces ak yooyu. ba ñu tane. Mm-hmm. doogu ñibbi seen i kër. waaw ah, mooy sutura c'est fu mën a nekk. waaw mais xam nga nag Ndiaye nag magum jëmm nag bu am vingt trois ans wala trente cinq ans. dem ci hôpital naa damaa bëgg xaraf tamit loolu man mbir boo mën du ko def. ah dana yéeme de. waaw xëy na sàggante am na ci te lii tamit dina bëri ñee ñu ñëw de. waaw mais kii ki ñu ci dimbali woon. Mhm. na yëglu. ba ñu boole ko ak kii. waaw bu ko defee mu <laughs> jàppale ko. mu dimbali ko. fu ñu jëm feneen. rue 15 bii. xaaral xaaral ah, waa sëñ Fall. <laughs> Ah. <laughs> ah dë dë docteur dégg ñu la de. <laughs> kay quatre micro ngi nii kay fal. docteur ñu la de. léegi ñu dem ci beneen élément bi. Ndiaye. rue 15 bi la ñuy des. suñu mhm. benn dëkkandoo. Mhm. day jaay ay machine u ñaw. Mhm. benn waaye moo fa ñëw démb waxaale ak moom machine. mu jël machine bi ne kon boolema ak livre ma fay ko. mu ko benn borom clando. mu war a jox waa cent cinquante mille. te borom clando bi cinq mille mhm. mu yóbbu ko ba liberté six immeuble Ferdinand Coly mhm. ne borom clando bi xaaral mu wàcc wàccee machine bi dénk ko borom café gi ne ko nañ demaat ci ginnaaw mu def benn table ñu dem foofu waa ji réer ko ñëw jëlaat machine bi dem yoonam laa ilaaha ci taxi xam nga luy cat li waaw caméra dañ koo jël dañoo jël waa ji moom sàcc kat machine muy jël machine yi maa la wax lii ay ca ñu déglu ay machine lay jaay maa ngi rue quinze angle dix huit foofu lay jaay ay machine yu ñëw dafa am benn waaye benn grand bu ñëw mi ngi xaw a am yaram nag euh, te ñuul mi ngi sol ay dàll yu óol ak benn jean bu ak benn chemise bi mu ñëwee mu waxaale ci man ñaari machine ñu waxaale ba pare bon ma jaay ko machine yi defal ko facture jox ko reçu yëpp ba mu yàgg mu ne boole ma seen oto yi livre fii ndax xam ngeen fi oto yi livre ma ne ko si am na ci laa ko booleeg benn waay bu ne foofu ci ginnaaw mu ñëw ànd ak waa war koo jox cent cinquante cinq mille war koo fay transport am cinq mille mu ne ko maa ngi jëm en face immeuble fedd naa ko li biñ ba egg nag nee na biñ demee ba foofu mu wàcc daa di wàcce machine yi Euh, jël ko kuy jaay kafe daal di dugg ci ak kër génnaat daal di ñëwaat fekk waa ji ki ma ko boole loon chauffeuru clando bi ni ko léegi nañ demaat ci ginnaaw ni nga jël ma fa benn table ñaata laa lay fayaat nee na waa ni ko danga may dolli trois mille ñu àndaat dem ci ginnaaw bi ñu demaatee ci ginnaaw xam naa fa la ko réere daal wàcc ni ko xaar ma dugg jël taal bi génn daal di génnaat ndànk jël taxi jaaraat fi mu wàccee woon ci machine bu bees bi jël taxi daal dem yoonam waa ji toog nag lu yàgg-yàgg génnut mu woo ma téléphone ni ma yow wool sa waa ji parce que man boobu ba léegi maa ngi koy xaar mais génnul ma ni ko non man waa ko dama ñu euh, moom mu jox la sama xaalis te fay la man waa ji client la rek dafa ñëw xaw ma ko léegi nag euh, noonu la yóbboo machine ba waa ji woo na foofu ak boroom kafe gi wax wax ñu wër mais yooyu doo xam foo koy wëri ji léegi nag moo tax ma ne woon naa la ko wax dimbale ma ngir yàlla nit ñet bàyyi waale ci encore euh, prêter ci attention bu baax a baax ci surtout sama mbokki commerçant yi waa ji nag maanaam bu bëggee jàmm euh, wax ko maanaam na ko indi ci sutura ma nga sama facture mi nga sama carte na ma woon dànk indi ko sinon caméra bi jël na ko lépp bu ko indiwul tamit dañ koy dugal ci internet bi bu indiwul sama yof dinaa ko lancer yëpp ci internet bi ak Facebook bi wala dinaa la yónnee photo yëpp ay booru midi une heure nañ ko jëlee rue quinze angle dix-huit Médina ni ko danga may yóbbu en face kër Ferdinand Coly euh, immeuble Ferdinand Coly bi nekk Liberté 6 heure boobu la exactement dégg nga Ndiaye loolu la waaj a def. kon daal yóbbu na machine machine machine ñaw bi. yóbbu na machine ba yóbbu na xaalisu clando ba dem yoonam. non clando bi moom da koo fayul. waaw ana ana image caméra surveillance yi. waa ji yónnee nañu ko mais nee na bu ko dugalagum su ne dégg na ko wala taximaan bu jëlee démb il ma féet naa ko ay benn waaye ak machine ñaw. waaw mu signalé ñu ko. su ko indi fii ci rajo bi ci sutura. Mhm. na ko indi wala mu yóbbul ko waa ji balaa ñu dugg vidéo yi. ah ok jarul xaar. am na benn assistante infirmière bu moo message léegi nee na naa ko jox naa ko booleeg waaju mu mu xarafal ko. ah d'accord alhamdulilah. waa jigéen naa mooy xaraf nga mag du xaraf li mba jàmm la. Diagne xamoon naa ne boo ko déggee loo ci bàyyi moom problème bi mooy daf di góor. waaw. Euh, yaru ko. waaw yaay ma ko yar mais jafe-jafe àdduna da koo topp ba talu ko woon. waaw mu dem nag ba nekk mat waaw mais problème mooy mënut a dem ci euh, mënut a dem. ak ni mu toll. waaw ñu koy xamal. waaw comme nag am na ko fi jaaroon koo xamante ne jii moom it dafa nekk mag te jotutoon a jaar néegu góor. waaw am ku ko yëg am fu mu ko dugal defal ko li mu koy defal ba mu génn te kenn xamul. waaw kooku la bëgg mu jàppale ko. Ah. moo waral coow li. Ah, waaye mag la mu xarafagul nag. ngeen di béyee. ah kooku moom fu mu toll nii lu mu doon mag mag mënu mënu mënu ko su ko tuddee muskàllaf. waaye léegi damaa bëgg ñu waxtaan. waaw damaa dégg dafa am lu am solo looy waajal auditeurs yi. waaw ndax damaa bëggoon a xëy dem dem fële. dem Dakar Arena. Mhm. Ah, ma ne Dakar sax stade stade Abdoulaye Wade ja. waaw waaye dama si génn dama koy dëkkale ba boori midi. Mhm. ndax Abba dafa xëy dem foofu ak Boubacar Diallo ñoo yore ambiance bi foofu. Mhm. léegi noonu dañuy tijji antenne bi à partir de dix heures su ngeen paree. ba midi moins. def waxtaan du édition spéciale. ku mu neex nga woote si téléphone yi ñun ñu woo ay nit. Mhm. ñu waxtaanee match bi. woo aussi ñu nekk si terrain bi. bu dund ambiance match bi dem si match bi. maanaam daal spécialiste dañuy intervenir. ñi ñi di intervenir waaw. Euh, anciens joueurs yi di intervenir. ñëpp waykat yi. waykat yi. aw artistes comédiens yi. Mhm. ñëpp dugg si antenne bi nu bëggee. teg suñu ay musique kafre waxtaan bu midi nu jël teer bi ñu jël oto yi jël avion yi jëm stade Abdoulaye Wade. Diagne da baax sax. waaw pression bee bari ñu waxtaanee ko au calme rek dans la bëggee. mu tas. mais bëgg naa balaa may jógee fii midi. waa loo minute média ñu indi sama casque bi. parce que casque boobu moom laa war a dalloo ci stade bi bi ñu ma joxoon démb Cheikh Yane da ko sàcc jaay ko ba pare di ma woo téléphone di ma baab. loo loo minute média jox na ma démb Ndiaye benn uh-huh. téléphone bu rafet waay. waaw ah. léegi nag loo minute média ku fu fu ne ñoom Sandaga. loolu multimédia ku leen dégg ci Sandaga nee wax ne Malal Junior nee nu indi casque maa ngi ci rajo bi di leen xaar. ñu indi casque parce que casque ba mu laa war a yóbbu stade tey reporté match bi Sénégal am ndam. loo loo jee tax mënu ma. waaw dina ko indi. dégg nga loo jee tax mënu ma. léegi yéen su ngeen paree. alors présidence publicité après nu jël entrée bi nag Georges mooy réalisé majj majj gi tàmbali tey moom c' est le majj majj. am na ndékki wala amul ndékki. <laughs> am na tout. jërëjëf ci kanam tuuti kon. Passepartout maa ngi lay gërëm. jaajëf Ndiaye jaajëf ay ci allo présidence. reprezentanți cu Robeacul Barac Sata Călizazor, Referențorii Victorii Cori Prezentanții, la Palele Minus Dansi Prezentanții, Republica Mădevări Sărita, la Cartier Capra, Doca Plasar, ca Cosura Minus Sadus, mă de Palele Bacona Iac, la la la la. Mâna clară, da, oficial de guvernul Săra, la Broc Santa la Ev, Leopor Săra, Săra, la Minus Sasot, care va ducă repede, vă la dâm, dâm, dâm, dâm, dâm, dâm, dâm, dâm, dâm, Eu care m-am chiuat pe ce prezda cu călorul nu fă leude. Salam alaikum! Alo, alaikum salam! Coco? aj Mansour. Eh, Mbaye Mbaye Mbaye. nee na Moussa Sow Mbaye rek am jàmm bu baax a baax. sant yàlla Mbaye sant yàlla Mbaye Mbaye Mbaye naka coono yi. waa ñu sant borom bi a si yaram yeeg sedd bi Mbaye. waaw ndeysaan ci dëgg-dëgg ah sedd bi day xaw na métti waaye nag ci dëgg sant yàlla rek. rek laaxatu alhamdulilah Mbaye alhamdulilah ak am ay mbàjj yu nooyo nooy. yoo xamante ni ci dëgg-dëgg boo ci duggee. doo xalaat sa sedd. Kalla Mbaye alhamdulilah alhamdulilah. nan la def aywa woote tey ci pale bi. en regard de la constitution. nag dafa génnoon léegi ni am ay gan yu doon dalal. Hmm. waaw xam naa suñu gani mbokki naar yi jógee ci kii bala rek pour ñëw xam naa. <laughs> waaw loolu tax moo taxoon sax ci digg-digg naa woote. wax ko wax ak askanu Sénégal. ndax xam nga ni Sénégal. nuñ ko dippee. ah réew teranga. pays de la teranga. Ah, waaw waaw. réew moo xamante ne nii ci dëgg-dëgg jàmm moo ko la moo ko fondement. jàmm rek jàmm rek jàmm rek mbay. ci dëgg-dëgg teraanga moo ko fomm fondement ak nu mu mënti dafa ñun boo ñëwee ñu teral la nga dem sa yoon. billaay billaay mbay billaay. kon ci dëgg-dëgg xale yi nañu ànd ak dal. waaye xale yi dañ bay ne daan fayu laseer yi. waaw te bañ a fayantoo laseer yi si suuri waaw xam nga loolu tamit ci dégg dëgg dafa ànd ta fair play. ah ñii nee nañ daal laser ñii nee nañ am na ñoo xam ne laser jaru ko laser moom d'accord ay ampoule lañ jënd yóbbu stade ba ampoule. ampoule ay lampe lumière waaw waaw ampoule. ampoule d'accord naa ci waaye lance-pierre moom ci dëgg-dëgg day indi réeróo rek te réew bi ci dëgg-dëgg fi mu toll nii Poutine sax maa ngi ko bëgg a woo mu bàyyi guerre ba gannaaw moo ko fi dese kon wartuñu Afrique. ci dëgg-dëgg kon bu ñu indi coow bu ñu indi dara nañ leen wan suñu bopp ci biir terrain bi rek. wér na wér na ba kii. Eh, eh, Aj Mansour mën naa waaw kon maanaam wàllu biir yi ni ko fédération doxalee moom noonu tamit. waaw ci dëgg-dëgg xam nga Sénégal loolu yàgg na ci dem ba cof di loolu ci dëgg-dëgg yàgg na ci réew mi bu ñu xamee ne affaire yi dox na ci dëgg ñu daal di koy yokk. daa ndax déet supporter yi nee xanaa xamoon ni waaw dil la fédération ak ay ay niti boppam. waaw loolu rafetul actuellement billet 3000 lan waxoon. waaye billet dañoo mujj di ko jaayee ñaari junni. loolu rafetul loolu rafetul. loolu waroon nañ ko sécuriser ba kenn du ci jot ba di ko jël di ko jaayewaat ñaari junni. loolu rafetul jaaduwul. man la naan boo ko lekkee ci dëgg dëgg di ko faju jee. Hmm, day na waar boo ko lekkee di ko faju jee am loo xamante ni ci dëgg dëgg ndaw bu toll ci ndaw. Hmm, hmm. day moytu. Mhm. xaalisu diil. Mhm. ndaw bu toll ci ndaw. Mhm. day moytu di lekk lu lewul. dër na bay. te xam ni tôt ou tard ci digg digg dina feeñ ci yow. baaxul baaxul baaxul. ndeysaan digg di day yàgg rek waaye tôt ou tard dina ñëw. boo waxee rek ne business business. kon nit ci digg digg boo waxee ne business business. ñi kër business ci digg digg duñ ko defee nii. buñ ko jaayee woon ni ko fédération tegee noonu ñëpp mën na nañu am. ndax loolu ñu def tàcc la. Mm-hmm, mm-hmm. ak tàcc la. Mm-hmm, rafetul set maanaam ki nga bokk bi benn réew bokk ak moom benn men naka nga ko mën a def lenn ni. doy na waar mbay doy na waar. xam na loo xam ne rafetul ci ñun doomu aadama yi bu ñu demee bët mala yu gën ci dëgg-dëgg war nañoo xolaas du doy na waar mbay bu président ñëwee mani ko. président bu ñëwee nee ko. na sensibiliser li nga xamante ni mooy xale yi. weer na mbay. ne leen ñu dal. jërëjëf jërëjëf. ak ndaw da ngay dal. jërëjëf mbay. lépp na nga ko teg ci éthique ak déontologie ak xam-xam. jërëjëf Mbaye. ñëw naa ci sa réew teg nga ma à l'aise teg nga ma ay medd demal man ci bal bi laa lay jaay bu ñëw ma jaay la professionnel dóor la ca dëgg-dëgg woon la gannaaw loolu mooy yëf ca ci la la àdduna bépp di nawee dina ko dégg ak jàmm ay ca votre correspondant waaw nee ko nag ci dëgg-dëgg carburant bi manqué la pour ma demee stade carburant bi ah carburant pour nga demee stade <laughs> dina nu boole wax d'accord d'accord ay ca jërëjëf almaa dégg boole dégg nañ ñoo boole RFM, ou RFM.